ci njàngum xasaayid daal di ci itam euh, siiwoon lool macha allah ñu nag euh, am mbégte tey dalal ci euh, Serigne Diassé Ndiaye di suñu pap nekk fii ci kër gi moom itam di def firi xasaayid ci réew mi FM xam lool ndem si yàlla si ngir delloo ko njukkal kon tey ñu daal di koy dalal ngir waxtaanee Serigne Ablaye Niang moomu Serigne Ablaye Niang Ndar ci xasaayid yeeg li mu ci jot a def macha allah ak digganteem surtout ak maam Borom Touba papa ñu ngi lay nuyu. di la gërëm ci disponibilité bi euh, ci waxtaan wi nga nara ak ñun tey euh, ci sëriñ Ablaye Niang Ndar aoudu billahi samiil alim min asheytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun soxna Fatou ñu ngi lay delloo nuyoo yàlla nañu yàlla defal fay ñu yoolu nuyoo ak yoolu delloo nuyoo Euh, baat boobu ñuy wax muy alquran suñu borom nga xam ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla lañu jóge woon ci moom la ñuy dellu euh, doomu aadama dafa baaxoo bu nit faatoo daf koy yërëm ndeysaan naan kañ la faatu fekk na moom euh, xelam mu dal moo ko may loolu waaye moom moo waroon a tiit ndax ki faatu jël na wàllam te li mu jël yow ala kulli xaalin di ci am sa wàll Euh, maanaam euh, xamoo kañ la xamoo fan la xamoo nan la. kon yow yaa liggéey waaye yaa fi des. liggéey na ba wàcce waaye nag euh, yow mi fi des nag yaa waroon na jàjju ni koy yonent bi alayhi salaatu salaam waxe woon annaasu niyaamu fa isaamaatoo in tabaon nit ñi dañuy nelaw waaye bu ñu faatoo dinañu yeewu kon El Hadj Ablaye Niang Euh, di jëmm joo xamante ni ji euh, dafa bay waaram ci xasaay di Serigne Touba bu doon ci tubaab bi tey dañuy wax ni il a son temps temps bi mu dund yëpp macha allah def na ci jeexital yoo xamante ni soxna faatu jàpp naa ni euh, am na lu ma xam ci moom lu ma mën a leeral loo xam ne boo ñu ko laajee rek dinañu ko mën a tontu incha allah. incha allah xam gi nga ko xam moo tax tey ñu dalal la fi sa digganteeg moom justement lan la woon. waaw suñu diggante de moo di moom euh, suñu bàyyi jànkat la woon boo xam ne tey daayira mooy bu naafion bi nga xamante ni mooy daayira jànkati xasaay di Euh, moom moo doon président d'honneur bi maanaam mooy cerveau bi daal moo ñu moo doon suñu kilifa ci lépp muy daayira boo xamante ni Serigne Saliou Mbacke moo ñu joxoon tour wi tuddi ko ma waa Mawaahibu Naafiyan fi Madaayu Shaafiin ku ne dégg na Serigne Fallou Ndiaye jànkatu xasaay bu mag boobu Serigne falu Ndiaye mooy président bi mm, suñu doom jële ji Xaadim Guèye ca Touba moo jiite waa Touba foofale waaye nag El moo doon suñu président d'honneur euh, man nag euh, li nga xamante ni séq naa ko ak moom moo di 1983 euh, bokk nañu jàng yoo xamante ni ca Paris ca Lyon mi nganu Serigne Mbacke soxna loo macha allah ci moom laa xame woon nag ndeysaan ni sax jamono boobu laa xam ne tawat ji ko jàpp ba mujj baatam bi lee mujjul mën a yëkkati Eh, keroog bokk nañu añ foofu leen ndeysaan mu ci laa jëkk dégg mën naa man de ñetti kuddi ceeb la ñu ma ordre ndax damaa jabet eh, man ma wax ne baatu jabet foofu laa ko jëkk dégg ci moom xam naa loolu nag sam borom dogal na moo ko bàyyiwul ak eh, âge bi aussi ndax xam nga dund na juróom ñeen fukki at ak ñett waaw 93 ans koo xam ne dund na ko wax dëgg yàlla dafa mel ni waaw ci jamonoy tey loolu xam nañu ko ci moom bu baax a baax Euh, fi nga xamante ni nag euh, wàllu xasaay di moom wax dëgg yàlla bay na ci waaram bay waar goo xamante ni dafa yàgg dafa yàgg ndax 1951 euh, ci la jël daaj bi muy daaj tey te daaj boobule fi la ko fekk ndax xam nga mbir mu nekk bu fekkente ni da nga ci yëngu du ñàkk mag ñu la ci jiitu daan ci yëngu Euh, ku ñu daan wax euh, Baye Manta Seck dëkk ci Touré ngën yàlla dogal na mu bokkoon ci mag yi jànkat yi daaj bi Baye Ablaye Niang di daaj euh, fekkoon na moom mu di ko daaj yàlla dogal bi mu fi jógee moom itam ku ñuy wax bàyyi Aliou Fall ca Ndar moom itam jëloon daaj bi di ko daaj ba waa Ndar yépp xam nañu loolu ginnaaw bi nag Baye Ablaye Niang dal di jël daaj bi maanaam ca yooyee jamono ay 1951 waaye li sëriñ Mbay Jaxate di wax naan euh, lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa euh, daaj bi donte fekk na ko fii yàlla dogal na moom am na ci loo xamante ni li macha allah euh, fa mu jëkk a feeñee ma macha allah ci moom lañ ci gisee mu def ci loo xamante ni ba nëga bàyyi na fi waar woo xam ne macha allah ñu bari ñu ko ciy roy ci gone yi nga xam ne dañuy jànq say Sëriñ Tuubaa ak mag ñi sax Euh, soxna Fatou daal defe naa ni mhm. départ bi loolu ci li nga xam ci moom lan moo ko dugal ci woyum xasaayit bu fekkee mës ngeen cee wax. waaw waaw xam nga moom euh, nekk na koo xamante ni euh, maçon la woon. chef de sance la woon seefu maçon la woon boo xamante ni dafa boole woon liggéey bi ak njàng mi. 1951 euh, boobu ma la wax noonu man na maa wax ni euh, ci la daal di ndax dëkk bi mu euh, cosaano ak Turingen dafa sorewut ay 3 kilomètres. kon su fekkee ay magi jànkat dañu faa nekkoon yoo xam ne dañuy yëngu ci xasida yi mën nañu wax ni foofa la daal di départ waaye dëgg dëgg njàngam nag boo demee ndar ku ñuy wax Serigne Tayiru Jéey Eh, doon magum borom xam-xam moom mooy ki nga xamante ni moo jàngal Alaaji Ablaay Ñang alxuraan ak eh, xasaay lépp fa la ko fa la ko jële eh, ba tax na maanaam bi nga xamante ni bi dem na ci xasida yi di ci yëngu di ci yëngu ba am ci cër boobu mu ci am xam nga boo xoolee da ngay gis ni 1943 1943 la jëkk a dem jàngal Cheikh Moustapha Mbacké le premier xalif bi nga xamante ni moo jëkk a wuutu Cheikh Ahmadou Bamba ci Touba 1943 Alaaji Ablaye Niang eh, ci la ko jàngali eh, mu mu bég ca njàng ma lool ba jox ko ñetti téeméer xam nga ni 1500 ci jamono yooye xaalis bu baree bari eh, booba nee na moom mi ngi ànd ak lu ma juróom benn nit ak moom muy juróom ñaari nit ñu dikk ndeysaan euh, Cheikh Moussa Mbacke bëgg ci njàng ma lool ba jox leen lool ni gune ndar yooyu nañ leen jox loolu kon. Euh, sëñ Mouhamadou Moustapha moo ni woon euh, ni sëñ Ablaye Niang Ndar di jàngee euh, xasida yi mm. dafa mel ni ko sëriñ Touba bindee. waaw akasa ndax xam nga xaadimu rasul mbindam dafay loo xamante ni lii jànkat yu baree baree bari sax war nañ cee gën a mën a jël leçon bu baax a mm. baax ci kaw di sàmmonte ak na mu ko bindee woon. li ñuy wax jànkat bu tooy. Mm-hmm. jànkat bu tooy mooy boo xam ni du respecté masque yi maanaam amul grammaire xamul naxwu maanaam masque li sëriñ bi maasoon euh, maanaam euh, bu ñëwee moom day jël beneen façon maas masque ko ba ka nga xamante ne dafa dégg arab su ko déggee moom day ak yàq gu wér lay dégg euh, ba tax na sëriñ Tuubaa dafa amoon ci jamonoom ay jànkat yoo xamante ni ñoo ko daan jàngal yu am maxaarijul xuruuf Euh, am fasaaxatu lisaan te xam nga naar yi euh, maanaam yàlla may neen ci loolu mm. amoon na naar bu ñu daan wax buuna yàlla dogal na mu nekkoon koo xamante ni dafa am maxaarij am fasaaxa baat bi neex moom daf daan rajas boo degee njàngum rajas nag mooy loo xamante ni kenn nit ki rek moo koy def euh, njànguma aw mooy njàng mi nga xam ne mooy li Baye Ablaye Niang doon def nga xam ne day yëkkati ñeneen àndandoog moom ensemble bu ko defee buuna moomu moo doon jàngal Sëriñ ci njàngum rajas fi ngay xamee ne Serigne Touba ko fonkoon euh, maanaam euh, koy wax li mu bind ni mu ko bindee nga koy waxee noona euh, moo waraloon mu préféré naar boobu lee di Bouna ba wax nañu ni sax Bouna ndeysaan bi mu faatoo Serigne Touba génne na benn mbàjju leen boo xam ni booba jamono kenn mësu koo gis daal xamuñu fu mu fu ñu ko liggéeyee ni ko Seydina Muhammad alayhi salaatu salaam moo la ko jox. ma maanaam nañ ko sànge nañ ko sànge Bouna mi nga xamante ne moo doon jàng sama xasaay di yëree boppam itam mu summi ko ni nañ ko solal buuna mi doon jàng sama xasida yi nga xam ne kon Serigne fonkoon na lool kuy jàng xasaay itam yi di ko waxee ni ma ko bëggee lool nag àlla jablaa ñi yàlla da ko cee dimbali woon ndax moom xasida yi mu doon jël sax dafa bokk ci xasida yu gudd yi muy jës bu muxaddamaat ak mawaahibu eh, di xasida yoo xamante ni eh, dafa gudd eh, te wax nañu ne mooy naari góor yi nga xamante ni Serigne Touba nee na ku ko war maanaam maanaam du la wàcce fenn fudul ci aljanna jës boog mooy boog mu xaddamaat euh, bu ko defee loolu la doon jàngal Cheikh Moustapha Mbacké ba mu bég ci moom ndax xam nga su demee ba yëkkati ñetti téeméer mille cinq cent ca yooyu jamono 1943 di ko ko neexale day wane ni moom bég na ci la mu doon wax ndax mi ngi doon dégg li muy jàng te ginnaaw waajuram moo ko bindoon muy xasaay di Serigne tubaa te moom itam muy borom xam-xam di doomi Serigne tubaa lu ci yàqu rek da koy xam euh, kon bég gu béggoon ci Alaaji Ablaye Niang moo waral mu defalan ko maanaam cant googu ba defal ko maanaam neexal bu toll ñu yëkkati 1500 jox ko ko ca mhm. 1943. Mhm. dañuy taxaw tuuti ci xasida yi ngir ñi nga xam ne xëy na xamuñu ko ndax am na ñuy dégg xëy na way wi neex na ni ñu ko yëkkatee neex na waaye xasida dëgg dëgg dëgg loo ko mën a euh, misaalalee ñi nga xam ne xëy na xamuñu lu mu ëmb ak lu mu wund. Mm-hmm. waaw xam nga xasaayit moom euh, Serigne Touba dafa am benn xasida bu mu bind boo xamante ni bu gàtt la juróomi way rek la sax waaye daf ci am benn baat bu mu wax dafa wax Euh, xasiidati euh, waxul xasaayid yi parce que bu doon xasaayid yi maanaam jamono lay doon nekk euh, xasaayitam yépp kon lay wax waaye daf ne xasiidati sama xasida gii faaxat xasaayidal kiram wali taquudu abadan xayral maram maanaam xasida yi nga xamante ni gaa yu baax yi tagg nañu ko ba ba ñu contrôler ko ba ni ñi ñoom atme nañu mooy mooy xasida yi ñu gën a préféré sëñ Tuubaa nee na sama xasida gi faaxat dafa kawe yooya moo leen féete kaw te it wali abadan xayra mara maanaam dafay wommat lépp looy sàkku la ca gën la lay wommatal ba jox la ko. waaw moom ñu ngi koy wax saana ilaahi bil munaajihaati waa badan ax naa yaddi an haati xam naa dinaa la ko yëkkati sax saana ilaahi wal xawliya man laa yasaalu xuwati wa xawliya xasidati فاخذ خسائد الكرام ولي تقود أبدا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناسيا وأخساه الملك ما تواجه نصر الله lii bi la ilaha illallah juróomi bayit yooyu la. macha allah waaw mu mu mu tudd ko muy xasida goo xamante ni ji moom da ko jukki rek ngir di leeral. doole xasaayidam yi maanaam képp ku koy jàng eh, li nga ci mën a am ak fa mu lay yóbbu. kon ay ñaan la. waaw maanaam eh, xasaayid eh, dafa nekk loo xamante ni lépp maanaam ay ñaan la. ñaan ak may yu ko suñu borom may. ak tagg borom bi aussi dañ ko ciy gis. waaw tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. maanaam dafa boole lépp boo gisee xasaayid mën a taxaw taxawaayu bu jaamu yàlla yépp maanaam moo di mbooleem lu jëm ci diggante ibaadaat yi jaamu suñu borom tabaraka wa taala yoroon sa kurus di def tasbiham salaatu salaatu ala di def laa ilaha illallah di def ay astaghfirullah di subhanallah yooyu yëpp kon xasaay di dafa ëmb ay digle yi Sëriñ Tuubaa jëm ci jaamu diggante borom bi ak jaamam Mhm, waaw dafa dafa indi itam ay digle ndax boo demee xam nga li ëpp sax ci jànkati xasaay di dinañu jël ak xasaay di ko jàng waaye te fekk na xamuñu. sax ni waaw xamuñu la muy wax. mi mel ni alxuraan ji liñ ci tari bari na waaye xamuñu lu muy voilà foofu nag fi la coow li nekk waaye xam nga sëñ Tuubaa ndeysaan ci ak labiram ak bëgg kuy jàng xasaay di sa yaakaar du tas. Hmm. ma ngay wax naan wal tubashir sabil ulumi bi ilmi wa sabil jahli wal tarut li yaxini yow suñu borom tabaraka wa taala wal tubashir sawil ulumi na nanga bégal boroom xam-xam yi ci sama xam-xam ñi nga xamante ni ñi bu ma bu ma wooyee rek bu ñu ko déggee daanu ba bég waaye nag wax sawil jëhli ak ñi nga xamante ni dañu ko réere nga xamuñ xamuñ ci dara dañuy dégg rek eh, bay di ñu yëkkati ko ñu daal di yuuxu daanu mm-hmm. joxe la ñu am waaye boo leen laajee maanaam li ñu wax lu mu doon dañu ko xam eh, loolu ak laabiram moo tax wa wasawil jëhli wal tarul yahini jooju mu dugal ci eh, xasidaam bu mag boobu nga xamante ni moom la tuddee noonu ya euh, su ko defee xasaay di seen tubaay bokkoon na ci euh, fonk ba mu ko fonk ba taxoon na mu taamu ci woon lool ku neex baat ku neex baat di ko jàng waaye nag ki neex baat ba di ko jàng it nag dafa am lu koy dimbali mooy di ko sellal mu sellal xasaay di su koy jàng mu jàpp ba sell euh, ba noppi nag defar xolam Euh, ci biiram ndax sell dafa am ñaar ci kaw euh, ndox moo koy def mm-hmm. waaye dafa am beneen boo xamante ni mooy bi gën a am solo mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ni am na lu nekk ci nit su baaxee lépp baax na su bonee lépp bon na ñu ni ko lan la mu ne xol bi doomu jànkatu xasaay premièrement war naa nekk ku defar xolam bëgg ñëpp sopp ñëpp ba noppi boole ko sell ban euh, soog di jàng xasaay sëñ Tuubaa ba tax na sëñ Tuubaa mas naa am koo xamante ni dafay jàng xasaay yi waaye yàlla dogal na ma koy waxee tegu ca na mu ko bëggee baat ba itam xëy na dese naa neex yu demee noonu waaye dafa daal di woo ko mel ni sëñ ma sàmba nga xam ne ci magi taalibe yi di rakkam eh, mu yar ko ni ko man ngaa fexe ba mu bàyyi te du mer waaw fexe ba mu bàyyi te du mer waaw nga xam ne kon ba tey loolu teggi ni sëñ tubaa eh, moo egg foofu ndax ma ne bëggul ñu gëdd ko mbaa ñoo ko sëñ bi ne nga bàyyi waaw nga xam ne eh, sëñ Massamba daal di jël engagement boobu di ni ko macha allah tubaarkàlla euh, mën ngaa ñëw euh, naan ataaya mu daal di ñëw sëñ bi di xiim euh, di ko jox mu bàyyi njàng ma di naan ataaya <laughs> nga xam ne kon day defee ni njàng mu neex moo tax ñu woo ko waaye fekk na toj na dëkk bi waaw waaye lépp ci ay teggin la ak bëgg ñu sellal ko mm-hmm. sëñ Ablaye Niang Ndar mi yeggoon na ci docteur mm-hmm. ni ko bàyyil njàng mi wala baat bi bu yàggee dootoo ci mën a wax maanaam wax ji dana waral. waaye ana lu waral mu mooy ci ne du ko bàyyi moom ak Serigne Touba daal euh, dee rek. waaw xam nga xasaay dafa am ñaari façon dafa am yëkkati ak euh, yelu euh, moom yëkkati bi moom la doon def. di ko def di ko di ko def comme ni ma la ko waxee ay 1951 ba ëgsi ci 1991 sëriñ Mbacke Soxna Lo mi nga xamante ni bii mooy sétub Cheikh Moustapha Mbacke moom mu jàngaloon ba mu jox ko 1500 ya Eh, ci 1943 sëñ Mbacke soxna loo sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mooy bàyyam eh, kooku Cheikh Moussa Mbacke moom même El Hadj Abdoulaye ñu ngi doon jàngal moo ko jur kon sëñ Mbacke soxna loo eh, 1991 bi yàlla dogalee tawat joojule tàmbalee arrivé El Hadj Abdoulaye ñu ngi ci bi mu jógee Màkka ngana leem ci la sentir ni mënatul a jàng sëñ Mbacke yóbbu ko France maanaam yóbbu ko pour mu faju ji. Eh, nga xam ne kon dafay mel ni dañuy dellowaat buum ci boy boy ba ndax moom itam la maamam defoon moom la daal di yeesalaat maamam a jëkk yëkkati 1500 ci 1943 neexale ko Alaaji Ablaay Ñaŋ kon su demee ba yàlla dogal télé googu ñëw mu yóbbu ko France ngir moo faju yi waaye yàlla dogal suñu borom xam nga moom fa'aalu limaa yuriidu ah. eh, lu ko soob lay def eh, xëy na bu fekkoonte ne tey ci machine la dañuy wax ne euh, maanaam éléments yi ci biir moo sonn. Mhm. Euh, vocal yi mu nga xam ne moom lay yëkkatee ndax ni mu daan jàngee ak ni mu ci yàggee. waaw xol la ci daan demee. ak pasté ba mu ci daan demee. loolu dem na ba yàlla dogal euh, mënatu ko waaye nag bi mu ko mënatul it nag mën nañu wax ni li mu durus ci ci xasaay di durus mooy yalu. li mu ci yàllu kon dañuy wax ni moo ëpp li mu koy mooy jàng waaw yow rek nga xam ne yow da ngay koy liir attentivement nga xam ne yow yow la concerné mhm. kenn du ko dégg loolu moom ba ni mu génnee àdduna maanaam bàyyiwu ko eh, ndax xasaay di Serigne Touba moo tax moom daan na wax sax ni eh, maanaam li ma sam borom defal ci xasaay bi bi ma bi bi may jamono yi may jàng maanaam awma ko woon maanaam teraanga teraangaam dafa mel ni bi mu demee ba jàngatul ci la teraanga ji gën a yokk ba noppi mu boole ko ak noflaay ndax xasaay Serigne Touba yi dañoo xam ne boo ko dee yëkkati dangay am eh, teraanga ju ñépp yëg mooy nit ko daanu yuuxu tàll dix mille ñii sumi seen xabtaan sànni la ñii tekki seen montre loolu mooy teraanga ju ñëpp yëg ndax ñu public baa ngi lay xool mais nag boo ko dee durus nga xam ne kenn dóg ko yàlla da jox Sëñ Tuubaa nee na xës di dalay jox teraanga ju kenn dul yëg ju kenn dul yëg nag mooy mën ngaa tëj seen néeg léegi sax ci xës de yi di ko ji ci jàng rek waaye sa borom daal di toj xolub doomu aadama yi Eh, ba ba yow boo ne tëll sax mbaa fa nga toog fi saas lañ lay daal di woo. jox jox la leen ak leneen. waaw ah, su ko defee kon eh, loolu eh, xasaay di moo koy def doomu aadama boo ko dee jàng daal te di ko sellal dangay ngay dem a dem a dem ba boo ko jàngatul sax di ko durus di ko yelu macha allah faw xasaay di Sëñ Tuubaa di la teral loolu nag moo daloon Alaaji Ablaay Ñaŋ ba tey jii incha allah lañu koy ñaanal ca ndar tey la ñetti fanam ndeysaan ñu koy ñaanal foofu la ca ndar xam naa ni. bu soo yàlla balaa émission bi ñuy tëj dinaa am la mën a ci leeral. incha allah alors ñu des ba tey ci xasida yi ñu ngi koy wax sànq am na ñoo xam ne xëy na ñu ngi koy jàng te xamuñu ko euh, bëgg ñenn ñi xam ko moo tax ku mel ni xëy na sëñ Moussa defoon ci liggéey bu am solo moom itam euh, ci prime xasaayit gi. waaw xasayit yi xam nga sëriñ Moussa Ka moom dafa nekkoon koo xam ne poète la woon nga sëriñ Touba dafa li tubaab yi di wax poète poète nag tubaab ñoom fonk nañu ko lool. Euh, arab yi itam fonkoon nañu ko lool ndax dafa amoon ay woykat spécial ku demee Kaab bun Sayr Hassan bun Sabit euh, Mouhamadul Bousri ñooñu ay poète la ñu woon Serigne Touba nag dafa amoon ay poète juróomi poète yoo xamante ni yu siiw la ñu woon euh, ku demee ni ki ci mag mooy Cheikh Samba Diarra Mbaye bu Ndar nga xamante nekk na fi ba faatu ay at Serigne Touba di laaj ku mokkal woyu Samba Diarra ñu ni diw ak diw diw mu woo leen ñuy jàng woyu Cheikh Samba Diarra Mbaye moom la amoon ak ku ñuy wax sëñ Omar Fall Batoor ak sëñ Mor Kayre eh, ak eh, Cheikh Samba Diarra Mbaye sëñ Omar Fall Batoor sëñ Mor Kayre sëñ Moussa ah, am na eh, ku koo xamante ni kii itam ak sëñ Bay Jaxate am na koo xamante ni ñu ngi ko doon wax Bàcci njaay moom la ñuy wax Bàcci njaay tëggati na jóoloo li lamb leen passé nga xam ni kon sëñ Moussa ci biir groupe boobu la bokkoon ndax am na fu muy waxee naan dexu Kayre man laa naane ak sa Sadikh mooy sëñ Mor Kayre ak sëñ Mbay Jaxate mooy Babacar Sadikh dañoo xuus ci géeju Bàmba bay xel li meew mu neex kon day mel ni ñooñu ñoo ko jiitu woon ci woy bi mu dikkee eh, moom itam di wolofal eh, wolofal boobu nag comme ni nga ma laaj léegi ci ni mu def ba di ko traduire ndeysaan sax di ko def ci wolof mooy eh, sëriñ Basiru daf ko mas a wax ni ko réew mi dañuy jàngul arab maanaam ñëpp dégguñu arab réewum ajam la te yonent bi alayhi salaatu wasalaam siira maanaam dundam uh, ak laayifam yëpp dañu ko war a xam jullit dañ ko war a xam léegi nag ñu bëggoon nga def ci wolofal boo xamante ni bii day tax ñu mën a xam lan mooy taarixu yonent bi mu daal di def uh, defe naa dégg nga xës uh, maanaam wolofal bu ñuy wax ba barsan al barsan jiyu al barsan jiyu boobu moo daane yàlla yàllaaw boobu sëñ Moussa Ka daal di koy jël ndax way Mouhamadul Manawi yaa ngi ci ak Mouhamadul Busri yoog ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mu daal di koy jël nag euh, woy ko ci waaye nag jël ci itam ab yaat yoo xamante ni waxi Serigne Touba la di ko dugal ci biir euh, ngir leeral ko ba nga xamante ni bii ku ko ku dégg woy wi ci wolof di nga xam ni Serigne Touba moom lii la doon euh, wax ci xasaay di Serigne Touba alors sëñ Ablaye Niang wax nga ko sànq moom ak euh, sëñ Mouhamadou Moustapha la woon ba ci euh, gaynde Fatma ginnaaw loolu lan nekkoon jëflanteem diggante njabootu maam tubaa ak moom euh, sëñ Ablaye Niang Ndar. Mm, waaw xam nga jëflante bi moom mooy yàlla da ko mayoon loo xamante ni dafa rëy ndax dañuy wax ne xasaayit ndëndum buur la kenn du ko tëggal baadoo la moom yàlla dafa dogal mu mënoon ko lool man googu mu ko man nag nga xam ni. Euh, Serigne Touba ci boppam dañuy wax ni bëggoon na xasaay dem yi euh, waaye yemul ci mbind daan na yëkkati moom Serigne Touba daan na ko jàngal boppam ba yàlla dogal euh, sëñ ma Massamba mas na dox sax di di am yi mu jël ci air yi nga xamante ni dégg na mu koy mu koy daaj mm-hmm. sëñ Massamba di ko daaj mu laaj ko ni ko foo foo déggee loolu nga wax mu ni ko ah, xanaa ku baax laa dégg mu koy wax ci biir kees gi rek booba moom la ko doon wax mm-hmm. sëñ Touba ni ko Massamba mu ne ko Mbàkke mu ni ko na nga wut eh, maanaam ñu la jàppale ci eh, daaj boobu le ndax daaj boo dégg ma di ko daaj maa ngi ko dégg ci malaayika yi maanaam sama xasida yi man su ma ko jàngee ba noppi maanaam malaayika yi ñoom dañu koy jël wutal ko ay daaj di ko daaj daaj yooyu ñu ko daaj nag man ci laa ko déggee Euh, sëñ ma Massamba euh, moom itam di ko daaje noona ba sëñ Tuubaa xam ni ni mu ko doon daaje ni la ko malaayika yi daaj mu ni ko euh, ak saa ni nga ko daaje ni la ko malaayika yi daaj na nga wut ñëwee ci jàppale moo wax moo waral nga dégg ñaaw kuréelu sëñ ma Massamba am na ci ni ñu koy nettalee ñu naan wut na fukk ak euh, benn ak moom muy fukk ak ñaar douze personnes yoo xamante ni mooy njàngum kuréel mooy li xisbu yi xisbu di def léegi ba kooku mooy njàngum kuréel njàngum rajas mooy li ma la waxoon ci boona mu kenn nit moo koy def euh, di taxaw di ko jàng njàngum kuréel mooy njàngum comme ni xisbu yi di def mbooloo mu àndandoo groupe wër njàngum awu nag mooy comme li Baye laa ñu ngi doon def ak euh, sëñ Fallou Ndiaye ñeneen ak ñeneen su ko defee nag euh, loolu mooy li nga xamante ni lii ci la xasaay di euh, cosaano cosaano koo xamante ni kii képp koo xamante ni kii jànkatu yit nga war nga cee bàyyi xel bu baax a baax te jéem a xam itam xasida yi maanaam euh, boo ko dee jàng war ngaa gën a góorlu ci sàmmoonte ak masque yi waaye nga góor góorgóorlu ci dem ñu firil la ko ba nga xam li ngay wax lu mu doon euh, dem na sax ba egg ci war na war nañ la ko mën a dicté loolu ñu naan dicté nga xam ne mën ngaa toog sax yor sa bic dugg fee di bind euh, bayit bi ba mu yegg te doo ko xool yooyu di bokk na ci liy dimbali jànkatu xasaayit bi ba ëllëgër si biir li muy wax dina daal di xam euh, doole yi li muy wax lu mu doon sëñ Ablaye Niang Ndar mi ñuy waxtaanee am na ku ma dégg mu ne da daan ba fajar. Mm-hmm. di jàng. bu fajar jotee lay doog a toog. waaw waaw loolu loolu moom eh, maanaam ñun ñii sax nga xamante ne ay doomam la ñuy jaar nañ ci ndax eh, bi ñuy tollee ci di yëngu ci xasida yi di jàngal ay daayira di déplacer ànd ak suñuy awkat eh, mag ñi nag ñoom xam nga bu njëkk. maanaam dañoo amuloon benn programme lu dul bu ñu nee gàmmu am na wala xasaayit ñoom dañuy teel a dem dañuy teel a dem bu ñu teelee dem la lan moo leen yóbbu déglu xasaayit su ko dee bu boobaa nag jàngkat moom faw mu teel a tàmbali. Mm. am na ci ñoo xamante ni 10 heures daan na bu ñu xiwloo reer ba noppi dañuy départ di jàng ba bët set ba fajar waaw ba ñu nodd fajar julli ñu ñu soog a bàyyi. léegi jànkate léegi nag xam nga occasion bi ñu am léegi léegi baas yi eh, nit ñi nga xam ne ñoo lay jàngaloo ci seen jëm bopp sax ñooy am retard mm-hmm. bala ñoo dugg ci baas bi dégg nga sañse yeeg dégg nga bernde yeeg ya ñuy def ak yooyu léeg-léeg ñu dem ba ay 2 heures du matin ñu soog a dugg ci baas bi mm-hmm. wala ay 3 heures moo tax jànkate léegi sax di xaw a yeex a tàmbali am na ñuy dem ba ay 4 heures du matin ñu soog a tàmbali ñu demee na waaye ñoom seen temps Baye Ablaye moom yéen seen i jamono moom moom dañu daan teel a tàmbali ba bët waaw bu ñu xasee boo gisee ma wax la ñetti xasaayit yooyu nii yu mag la jës bu mawaay bu mu xàddamaat boo ko doon rajas dong nga xam ne kenn awu la sax mm-hmm. day jël temps rawante nag nga nga bëgg ñu lay aw nga xam ne da ngay wax benn baat eh, ñeneen jël eh, jël beneen baat taxaw di kii su ko defee nag loolu moom moo doon li nga xam ne da ko doon dund Baye Ablaye daal nekkoon na koo xam ne wax dëgg yàlla dundam yëpp yëpp yëpp xasaay di Serigne Touba yi la ko jox euh, maçonnerie boobu mu doon def itam di muy métier mu ci yëngu di ci liggéey dugaloon na ci maandute goo xamante ni euh, maanaam ku ko miin bokkoon ci ay apprentim nee na suñu masaana tooyal ciment bi euh, añ bi ñëw maanaam du nangu kenn añ day wax ni ciment alali jàmbur la te bu xasee tooy bu woowee day yàqu mm-hmm. maanaam li ñu xas tooyal nañ ko faf nañ ko liggéey ba pare waaw ah, soog a soog a añ ci ak maandu teem loolu nag itam bokkoon na ci li nga xamante ne xasida yi fay na ko ndax métier la ko defoon di liggéey waaye mujj na nag génn ci ndax day dem ba mujj xasaay di ëpp doole loola te jamono bi muy nekk ci métier mi itam eh, société ba mu doon liggéeyee dem nañu ba xam ni xasaay yi muy jàng vraiment ñor na ko ñor goo xamante ne ak eh, nu mu ci marqué temps ci nit ñi ni ko bëggee nuñ ko soxlaa ba tax na moom dañ ko daan may eh, maanaam liberté am boo xamante ni su waree jàngi dafay dem mën a jàngi su waree ñëw ci liggéey bi itam ñëw ci liggéey bi waaw loolu bokkoon na ci ab dundam. loolu yëpp mën na kaa dugal ci xéewali xasaay di waaw xasaay mooy li ma la waxoon léegi boo ko dee yëkkati dangay am teraanga ju ñëpp yëg soo ko dee yàlla da ngay am teraanga ju kenn du yëg xasaay di Sëriñ Tuubaa moom bala laa mën a teral dëgg dëgg dëgg te nga te nga daan ko def maanaam aw ñaas la ñaas nag moom sël mu du tax mu deñ bo moom moom boo sonnalee Serigne Touba ndax Serigne Touba dafa wax ni maanaam ku ko defal loo man mu defalal loo mënut ku ko defal loo mënut mu defal loo jomb mm, yëkkati xasaay di Serigne Touba nag eh, dafay loo xamante ne ndeysaan maa ngi fàttaliku eh, maanaam suñu mbokkum taalibe ñu daan ko wax Moustapha sàmm eh, nekkoon fële ca Touba ku bëggoon xasaay Serigne Touba yi daf daan durus da daan dolli dolli yu rëy la daan yor di ko jàng di ko jàng ba mu xar ndeysaan mu wutaat yeneen yu bees dafa ma mas a fekk ci benn euh, euh, programme ñu dalal ma ci néeg bi ma si fekk ko moom moo mu jiitu toog ci benn lal bu canapé nii ma si mu daal di nuyu ah, sëñ na nga def alhamdulilah ñu jàmmante mu daal di wàcc toog ci suuf te mag la kilifa la ma nga weex tàll ak bi jaaw dégg ma ma ma ne ko ah déet euh, mën nañoo bokk lal bi mu ni ma déedéet da ngay góor te may jigéen. waaw dangay góor te may jigéen man ko loolu la dig ma ko firil ndax yow ñu man jàpp naa ñun ñaar ñëpp ñaari góor lañu mu ne ma waaw ndax da ngay yëkkati te man may yelu ma ni jànkatu xasaayit bi yëkkati nee na nee na mooy góor nee na bii yelu mooy jigéen li ko waral mooy bi yëkkati énergie bi muy sacrifier ak euh, li mu ciy daj na mu ciy sonne noflaay boobu kii yelu da ko da da maanaam euh, waaw da ko cee ëppale mm. su ko defee nag kon mooy wane ni Baye Ablaye moom dafa nekkoon koo xam ne temps yëpp daf ko def ci xasida yi ba bi bi muy faatu mën na maa wax ni sax le le derniers jours yu mujj yi rek euh, image bi ñu kii ci moom euh, di ko enregistré sax ma ngay maanaam jéem a miime euh, xasida yi mu doon ñu tegal ko bande bi ni mu koy déglu di ko jéem a suivre noonu ko dee kon jëmale woon joo xam ne daal suñu xel dal na ci ndax robam bi sama doom ju baax jooju di jànkatu xasaayit muy sëñ Xaadim Guèye maa ngi dégg ci interview bi ñu ko interviewé muy wax ni Touba de fi laa dëkk waaye mosuma gis mbooloo mu toll nii ci ab rob nga xam ni kon Baye Ablaye ñu ngi mën nañu wax ni eh, rob bi nga xamante ni bii moom lañu ko dencee fële ca Bàqee eh, kenn gisagul mbooloo mu toll noonu ci ñu ko topp ba noppi nag mu ànd ko am ngërëmul sëñ Touba laaj nga ma léegi itam ni mu demee waa kër sëñ Touba waaye moom am na ngërëmul Cheikh Moussa Mbacké mi nekk la premier xalifu sëñ Touba ñaareel ba itam jàngal na Serigne Falilou waaw ah, xam nga sëñ Fallou mi topp ci Cheikh Moussa noonu noonu noonu noonu la ko defee ba njabootu sëñ Tuubaa yëpp am na sax way wu mu woy sëriñ sëriñ Fallou ku ko faalewul bu leen ko faale waaw waaw waaw loolu lépp yooyu yëpp ay def na ay wolofal yu baree bari yoo xamante ni day day dem ba ci biir mu woy sëriñ Fallilou de Cheikh Abdoul Ahad mi def na Cheikh euh, sëñ yoo xamante ni ay wolofal yu am solo ci moom euh, sëñ sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma yoo xam ne def na ay wolofal ci moom yoo xam ne moo ko jàng ba tax na daal moom ngërëmul gaa yu baax yooyu yëpp daal sama borom dogal na làq na ko moom Alaaji Ablaye Niang taxaw di jàng ba fajar yombul hmm. euh, yéen lan moo leen di may ngeen mën a tenir euh, maanaam booy jàng xasaat yi lan ngay yëg tax hmm. am na xëy na beneen énergie supplémentaire buy ñëw encouragé la wala jox la kattan daal ba tax nga mën a xëy na taxaw di di jàng ba fa man de ma ko bëggoon a def loo yaakaar naa ne dana métti la <laughs> waaw waaw bi ci gën a yéeme sax moom mooy euh, boo xasee ba toog fi nga toog ba bët set doo itewoo wanag doo si itewoo dara waaw déedéet maanaam boo xasee départ moom xasaay di secret boobu moo ci ne ndax dafa am benn magum taalibe moo xamante ni ndeysaan ci magi Sëriñ Tuubaa yi la bokk cent 1983 ñu daje Gabon ndeysaan mu ni ma sëñ sa ma ne ko Mbàkke mu ni booy jàng xasaayit sëñ Tuubaa yi na nga ko fonk ma ne ko incha allah mu ni ma ndax xasaayit sëñ Tuubaa boo koy jàng eh, nit day toog di ko déglu jinne di ko déglu malaayika di ko déglu mu ni ma ñett ñooñu koy déglu nag nit a ci ñeme di déglu ba yàgg mu jóg dem waaye nee na malaayika du dem jinne du dem feeg yaa ngi wax xasaay Sëñ Tuubaa yi mu ne même boo ci dugalee àdduna sax du tax ñu dem man ko ah mu ma boo ci dugalul àdduna nag da ngay dem ba yàgg ñun la cas yóbbu la ci martaba bi Sëriñ Tuubaa tolloon bi muy bind xasida gi mu ne loola tax jànkatu xasaay di jàng ba yàgg mu daanu eh, di jooy eh, am jël ña ko doon déglu àndaale ci ñoom tant bi yëpp mujj di jooy ne mu ne mu ne nag jël li tax muy gaaw mel ni ak melax bi ñëw ci yow doo ko yëg suy dem itam doo ko yëg parce que foofa ñu lay yóbbu sëñ Tuubaa rek a fa mën a yàgg. waaw kon kon xasaay di sëñ Tuubaa yi loolu moo ci matta bi bi nekku ci biir ba boo koy jàng moom day am lu roofu ci yow. loo xam ne ci yéeme mooy doo yittewoo dara. arri départ moom arrivé rek. waaw waaw moom doo ittewoo dara xasida yi ci boppam moo am lu muy def ci yow. Mhm. ndax euh, shifaawun min kulli daayin la xasaay sëriñ tubaay ma dégg nga rek sëñ Muntaxa mu baax mi yàlla na fi yàgg te wér euh, mbir mi xew rek muy. Euh, maanaam tawat ji xew rek dégg nga mm-hmm. mi ngi ci joxe xasida goo xamante ni gi eh, sëñ Tuubaa mi ngi ko tënkee na wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu fa haakum haasihi l abyaata shifaan min kulli daa in wa hisnan hasinan min makaayidi jamii l addaay maanaam uh, muy xasida boo xam Sëñ Tuubaa dafa wax ne xasida gi shifaan min kulli daa in la maanaam jàngoro bu mu mën a doon xasida gi da koy saafara Sëñ Muntaxa mi ngi ciy joxe ndigal sax Cheikh Bass mi ngi koy annoncé pour ni nañ ko muulaat jox ko taalibe yi ñi di ko jàng nga xam ne kon xasaayid Sëñ Tuubaa dafa am sirru bu ci nekk boo xamante ne boo xasee tàmbali rek maanaam dafa am uh, lu muy def ci yow loo xamante ni dootoo nekk nitu kese waaw macha allah faw am daal ñu am lu ñu la roof loo xam ne yow di nga dem ba yëg ni lii moom xasida yi moo ko def ci yow moo ko def ci yow barki xasida na wàcc ci réew mi jële fi jàngoro ji ak euh, àdduna bi yëpp ñu des ci Baye Ablaye Niang Ndar euh, daan na beru ñu ne itam di bind ci Serigne Touba di ko tagg euh, di ko wax ay wax yoo xam ne daal yu macha allah la waaw waaw Baye Ablaye moom xam nga moom dundam gépp moom daf di moom xasaay Serigne rek la doon dund ak fas yéene bay waar wi fas yéene nekk ci Serigne Touba di ci yëngu nekkoon koo xamante ni itam dafa laabiroon dafa laabiir lool ndax maa ngi fàttaliku année boobu ma lay wax 83 euh, maanaam bi ñu dajee Lyon euh, nganuk sëñ Mbàkke Soxna Lo moo doon ko jàng moom moom mu jëkk jàng bi mu jàngee ba eggal ndeysaan daf ma daal di wax ne ma jox ma rajo bi ni ma barkeelul am na frère am bu ñuy wax Sayer Ñang moom moom ñoo bokk ndey ak bàyyi gaañu na moom moo jëkk a gaañu àlla yàgg na sayer moo daal di jël kaala takkal ma sama ndigg xam nga ñoom seen kuréel noonu la ñu tàmm bu ñuy jàng dañuy takk seen ndigg ci laa jëkk a xamee ni moom Alaaji Ablaay nit la woon ku laabir koo xamante ni kii première euh, àqu xasaayit mooy da ngay sa xol li ma la ko waxee ci mm. tàmbali bi sa xol bi dafay rafet laabir nekkoon na koo xamante ni dajeeg moom nuyu ko te gisoo bëñam yombut mm. moom foo foo dajeek moom boo koy nuyu la muy jëkk a def mooy ree te yonente bi saasam dafa wax ne albashasatul wajhi xayrun min dunya wa ma fiha am ñuy wax sax ni xayrun min alxira maanaam kanam gu leer ba ku la gis ñeme la moo gën ay bernde moo gën teraanga moo gën it àdduna ak li ci biiram euh, loolu la yàlla defal sëñ Muntaxa mi yàlla na fi yàgg te waaye moom la defaloon Alaaji Ablaay Ñang mu nekkoon koo xamante ni mën nañu wax ni poète la woon ndaxte boo bu nee tegg xasida yi ñëw ci li nga xamante ni moom la wolof nàmp itam maanaam dina ci wax loo xamante ni ba ci soxna jaara bi nga dégg daaju soxna jaara ay a ngi fi eh, ni ma la ko waxee woon léegi woy Cheikh Moustapha Mbacke dégg nga maam woy eh, Cheikh Abdoul Ahad woy Serigne Falilou woy Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma loolu lépp ci ak farloom la woon ak eh, xereñ gu mu xereñoon ci li mu doon def ba nga xamante ne daal bàyyi na fi loo xam ne mën naa wax ne bu doon ci euh, artiste tubaab boo demee ca néegam ba tey ab saalam di nga fa fekk ay disque door yu bëree bëri yoo xamante ne liggéey na ko ci xas xasaay di ndax il a marqué son temps. liggéey boobu itam tàggat na ci njabootam. bu baax a baax a baax yàlla dogal na nag euh, njabootam euh, maanaam. Euh, ñoom ñëpp mën a jàng ñëpp nag góor ñi ak jigéen ñi daf cee toll nag xam nga njàngum jigéen moom xam nga pour ñu siiwal ko dafay xaw a kii ak yu demee waaye nday faatu ñang doomam boobule moom defe naan di ngeen koy gis sax ci ay kii bari ñu naan doom Baye Ablaye ñang moom moo ko duppi complètement macha allah maanaam nu fu baayam doon jaar rek mën na faa jaar ba tax na moom koo xam ne da ngay dem na ba jigéen ñi sax di mën a jàng góor ñi moom taxut ñuy wax xëy na loolu mooy li yàlla dogal waaye ki bàyyi Ablaye daal mën nañu wax ni boo tàntoon ab baas ca buntu këram eh, doomi boppam yi kese mën nañu ko fanaanee jàng bu bës kenn du leen rax. Mm. njaboot googu tey seen digganteeg eh, njabootu Cheikh Ahmad Bamba mi Baye Ablaye ñu ngi doon liggéeyal la. xanaa di ay taalibe rek xam nga ñoom leen seen baay yare woon. Mm. maanaam ci ci loolu rek la ñuy dund ndaxte dañuy ñoo xamante ni ñi fi ñu yaroo eh, maanaam dafay foo xam ne ku fa yaroo doo mën a def lu dul amuk taalibe. am yar ami teggin bëgg xasaay di Serigne Touba yi e, jaar itam e, fi nga xamante ni fa la seen baay jaaroon ndax seen baay taalibe la woon boo xamante ni bii e, ki nga xamante ni kii moo doon sëriñam waa kër sëñ Mbàkke Jóob Karsaan maanaam macha allah ab xalifaam nekk fi ci tawatam ji mujj ji rek mi ngi def benn bande di leeral ni ala jablaay ak taalibam yegg na ci maanaam. ñaari junni yi ma yónnee bu yàggu rek te te booba mi ngi tëdd nga xam ne booba euh, maanaam mi ngi ci waajtaay mm. waaye teewul dafa yónnee addiyaam euh, jox ko sëriñ bi su ko defee nag noonu ne la yaree ak njabootam ba ñoom ñëpp macha allah dañoo tënku ci fa seen bàyyi nekkoon rek di ay taalibe di yëngu ci xasaayu sëriñ Touba ba noppi nag gëm sëriñ Touba euh, masuma gis mbaa ma dégg fenn ku def benn lu ñuy yedde doomu aadama ñu ni doomi Baye Ablaye Niang la lu dul bëgg na xasaayu sëriñ Touba ak di ko jàng tey jàngkat yi fi ne xëy na di ay ndaw hmm. loo leen di diggal ñu roy ko ci euh, Baye Ablaye Niang Ndar waaw loolu de moom euh, jàngkat yu bare bare euh, bare ndeysaan sama doom ji may tudd ne léegi alaaja Xaadim Géey moom ndeysaan mu ngi koy wax naa xam nga moom toll na jamono boo xam ne daaj Baye Ablaye Niang daan na ko daaj am na sax image boo xamante ne bii dinañu koy faral di wane ci télé yi ci jamono nga xam ne daan na roy alaaja Ablaye Niang bu baax a baax su ko defee nag kon euh, dafa mel ni ndaw ñi moom ñëpp maase nañu ñee Baye Ablaye ñaŋ nan lañu ko ñee mooy euh, kenn ku ci nekk yaa ngi ñaan sëg mujj yàlla na mel ni gu Baye Ablaye Niang euh, li ko waral nag koo xam ne nag da nga koy ñee bëggoon a mel ni moom defe naa ni la la war mooy fas yéene jaar fa mu jaaroon te foofa mooy premièrement defar xol bi ba xol bi baax yéene ñëpp jàmm taalibe la woon boo xam ne bu masaan di dajeeg moromu doomam sax day daal di sumi mbaxanaam daal di koy sujjootal moo lay jëkka nuyu boole kanam gi foo ko gisee dafay leer. kon woyofoon na lool waaw woyof lool. kon nag ku mel noonu soo ko dee roy dangay fexe ba nanga góorgóorlu sell eh, li ngay def itam nga def ko ngir jëmmi yàlla ak yeneent bi ak Serigne tubaa ndax moom loolu daan jiital. te sëñ Moussa Ka dafa wax ni kuy jàng ngir yàlla ak njool màkk ak sëriñam ngërëm lu ànd ak dërëm lay am minallaahi waaye nag kuy jàngi a ngir àdduna ak lu mu am ba yóbbu këram du am ngërëm fii ba fa aouzu billahi su ko defee nag loolu sama doomi jànkati xasida yi eh, bari na ci ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom fi ñuy jaar moom naw naa ko loolu ndax sàmmonte nañu ak xaraf boole nañu ko nag ak yar ak i teggin waaye am na ci ñoo xam ne ñoom lañu leen di la ma leen di dénk mooy nañu fonk xasida yi bañ koo foye maanaam bañ koo defee comme eh, ni ñuy waxee xam nañ koy waxee yoroo métier yoroo dara yaakaaroo fenn dara dégg nga maam euh, di ko defal ñoo xamante ni yeyowuñu ko ndax ndëndu ndëndum la kenn du ko tëggal baadoo la te léeg-léeg nga dem ci barab yoo xam ne da ngay gis ñu koy euh, màjjaale màjjaal boo xam ne topp boroom xaalis mm. dégg nga maam wala borom xaalis ñëw ci barab euh, ngay jàng daw topp ci moom di ak di ko digtal loo xam ne day mujj yow ku am xel am xalaat day xam ne sa njàng mi ngay def jàngoo ko Euh, da ngaa jàng rek ngir bëgg loo am. su ko defee loolu moom lu mat a bàyyi xel la ndax Baye Ablaye wax nañu ni euh, daawul laaj kenn dara moom ku ko mas a soxla moom bu mu digganteeg yow bis itam macha allah day ñëw jàngal si la lu ko fa yàlla jox mu xam ne mooy wërsëgam. foofu sax laa bëggoon ñëw ndax njàngum xasida dañu koy jàng wala loo xam ne la rek xëy na mayu yàlla lay doon wala ku jóg mën nga koo def. waaw xam nga euh, moom njàngum xasaayit moom dafay loo xam ne mayu suñu borom la. suñu borom moo koy jaglee ndax mille personnes mën nañoo toog fii mille laa wax ba noppi yàlla jagleel ca kenn dong moo ca mën a wax lu ñu mën a dégg ñi di ko déglu waaw moo moo loolu moo waral ñuy engagé benn jànkat nga xam ne euh, murid yi lu ñu bari bari ci ab dëkk ak lu ñu fi kii kii bis ba nag bu ñëwee ba ñu am ko ñu soxla pour déglu ko faw ñu tànn kenn nag ni kii la ñuy jël pour mu defal nu guddi gi bu ko dee moom bu ko dee def nag ña koy seetaan lañuy bari lépp boo doon womat benn par benn koo ci jox rajo bi ni ko waxal la muy wax daal taal deesu ko mën a dégg ndax wax moom daa bokkut ak wax lu ñu mën a dégg waaw ndax ku mu neex na mën ngaa dar say nopp xatraay léegi def lu la neex waaye nag def loo xamante ne dañuy xam ne lii neex na tegu na ci yoon te mën naa teye nit ñi kooku moom yàlla moo koy jagleel nit ki du ko jóg daal di koy man jànkatu xasaay dafa dafa jafe dafa nekk loo xam ne boo ko doon jéem a roy tey maanaam euh, te mënoo ko euh, da ngay def sax euh, nit ñi ay ree ndax dañuy xam ni li ngay def mënoo ko waaye nag bu dee ko ko man moom bu nee der yëkkati rek nga daal di xam ni kii ndaanaan la li muy li muy def man na ko. kon jërëjëf porox ndoolu ngir yegg si ci yow kañ nga commencé njàng mi ak lu ci <laughs> ah, man de ma xanaa ma ma jéem cee boros sama sama wàll rek man nag de man xasaay Sëñ Tuubaa yi moom yàlla dafa dogal yàgg naa ci loolu ndax man 1966 temps festival mondial laa jóge ci daara ji eh, maanaam di tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam def naa jàngi xaadir lu mat 15 ans yoo xamante ni jàngi xaadir laa doon def eh, ba dem doon ci ndaanaan loo xamante ni macha allah wax dëgg yàlla Mbaye Ndiaye Samb yàlla na ko yàlla yërëm doo bàyyi saat bu Samb mii tey ci mbuur programme bu mas a am su mënta dem man la ko daan jox pour ma dem ci ba yàlla dogal ma dugg nag ci xasaay di Sëriñ Tuubaa yi doon jànkat eh, di ànd ak Sëriñ Ndiaye jànkat pendant 4 ans yàlla dogal 1975 euh, ci la mujjee jàng jàngi xaadir ci Côte d'Ivoire Alaaji Xaadim Mbàkke le grand conférencier ñu bari dañu koy dégg euh, daal di may jël def ma jàngkatam ma nekk jàngkatam euh, yàlla dogal booba ak léegi daal sam borom defal na ma ci barke ba nga xamante ni adduna bi moom bari na ci fu mu wër ba dem ci ndax def na Afrique def Europe def Asie États-Unis d'Amérique maa fa jëkk a taxaw ci jànkatu xasaayit euh, maa ngi fa jëkk a am euh, visa 1986 Nations Unies aussi maa fa jëkk a jàng xasaayit Sëñ Tuubaa ci ngani Sëriñ Mutula naan naa jàng lu mat une de temps deux de temps sëñ mbay soog a jël euh, loolu daal moom xam naa ne yàlla dimbali na ma ci xes di Sëñ Tuubaa yi moom ba fi mu ne képp ku ko yëkkati ku ne bu ñu la nee Baye Ndiaye sa Ndiaye rek moom di nga xam ne bay na ci ma waaye bu tuuti rek. Ah, ñu bëggalee ko gars yi la te ñuy euh, dégtal aussi auditeurs yi. Ah. Baye Ablaye Niang delloowee ko ko njukkal. Hmm. bismillah yan molo ay bila manay walante ay hamdan ربي خير مرابي خضر ما قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفور وهو ناصر منه في داين لاغتراب بالاغتراب لاغتراب بالاغتراب خطاب مع اعتداء لك رضا لك ثناء lakalti day ma acci day ya man safani ya man mani aman jafani lakalti day adisu tori asli umori kasir khuyur بلا كداء يا من أجاب من استجاب أبلي جاب في سنداء يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سندي la yàlla yàlla wéral baat bi yàlla yàggal la fii yow képp ko xam ni rek yaa ngi bégal jaam ñi ci xasida Serigne Touba yi ñu ngi lay gërëm bu baax xanaa ànd ñun ñëpp déglu rek euh, Baye Ablaye Niang Ndar euh, moom itam mu daal di euh, donte nekkatu fi bégal ñëpp ñi nga xam ni rek ñi ngi safoo xasida yi en tout cas ñu ngi lay sant di la gërëm rafetlu waxtaan wi macha allah am na solo waaw jërëjëf soxna Fatou maa ngi lay siyaare bu baax a baax di siyaare waa barab di ci jiital la président Mbagnick Diop euh, ak soxnaam madame Diop euh, waaye di siyaare bu baax madame Sané euh, di siyaare si Abdou Khadir Seck ak mbooleem équipage bi nekk ci barab bile. Eh, waaye di siyaare nag sama xarit sama sëriñ di suñu sëriñ di sëriñu président Mbagnick muy sëriñ Moustapha Mbacke moom Alaaji Baara ndax xam nga immeuble bi keroog bi mu koy ubbi Alaaji Baara la ko tuddee ba nga ne baa ngi nii ci biti mu tudde ko immeuble immeuble boo xam ne Alaaji Baara la ko tuddee eh, ñu jëm na ci eh, bisam bu rëy boobule moom seex Cheikh Mamadou Lamine Baara ndax xam nga Kazu Rajab le 22 la te Alaaji Baara le 21 la incha allah ndax moom dafa toppante ak Kazu Rajab bi kon dañuy wax ni daanaka euh, waa réew mi ak waa euh, groupe bi ak waa kër gi am nañu bis muy seenu màggal muy màggalu ki nga xam ne moom la ñu tuddee immeuble bi muy moom mu Lamine Bara su ko defee kon loolu daal moo doon kàddu yi nga xam ni moom laay def ta kàddu yi tàggatoo di sant ñëpp di la ñaanal di la gërëm yow itam ci yar bi ak teggin yi ak euh, laaj yu teggin yi ak di la félicité ci xam gi nga xam maanaam ni ngay posé question yi ak euh, ñor gi mu la ñor ak euh, ni nga koy laaj ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal jàmm ñu ngi lay sant di gërëm yooyu itam ci disponibilité bi euh, gërëm ñi doon déglu ñëpp kon ñu ànd bégal suñu bopp bégal ñi ñu doon déglu aussi ci Baye Ablaye Niang Ndar mm-hmm. ñu yëkkatiwaat maa yóbbu bi rek ndax am na solo lool macha allah mm-hmm. di ñaan barkeb xasaayit yooyu yëpp wàcc ci réew mi wàcc ci àdduna bi ba lii tey xëy na tiital ñu bari yàlla jëlee ko fi ci nu mu gën a gaawee kon mbokk yi li moo nekkoon seen émission démb tey ñu gërëm leen ci déglu déglu bi gërëm jaawa jàllo mi fare woon ci machine bi Fatou Thiam nga moo ne woon ci kàddu gi dig leen daje beneen dimanche incha allah waxtaanee leneen ak keneen di leen ñaanal kenn dal ak jàmm bu jërë ngeen jëf